Abdullah May Ben. Kala man la photo bi bi bi maka yere bi ma sant ni baraye ni ba bam waw ni. Li xam kañ la lan ma kañ la won? Kañ la? bi may ànd ak papa su dem ci programme di tëggi programme xam nga bu damaa bëgg bu samedi jotee dimanche wala dimanche rek ñu war a dem programme rek ma takk ba dëgër xam nga doon ànd ak papa su di wayaan waaw papa su waxee jox ma ma wax delloo ko dama doon sañse nag papa su ne ma booy dem programme del sañse may sañse ah, bambi bambi bambi ah mais Zal lu mu doon ambiance barki démb loolu noonu war see mayaat waa Sénégal yi loolu Zal loolu bari na. boobu de barki Serigne Bamba dani loolu bari na de. Zal nag nga bi bi photo bi xanaa bi nga nekkee Risa tool anniversaire sax waare woon na ci photo bi. yow da anniversaire waare woon na ma xool ma def lii nu mu tuddati ma ma def verte verte bi. waa Sall nu mu di ana mu. xoolal lii nu mu di zone nord na la yéen mi moo bu la yàlla fayee sa xol. nu di Bambi non Bambi oh. lu yàgg dëgg la Bambi lu yàgg dëgg lii maag Pape Sall ci atelier euh, bu yëmbal bu njëkk lii bu njëkk ba. fenn tuuti caaroy atelier caaroy bu njëkk ba la woon lii. waaw fauteuil bi kay boo ko xoolee xam ne fauteuil waa caaroy la. ah yow kat sa xon fële xool ma ma teg samay tànk ma damaa def sama jiin bu weex def sama sama li sañse teg la samay tànk def samay daal. daal naa la jàngal ay pose dégg nga ah. naa la jàngal ay pose gis nga li may wax. dañuy moom moo toog ci photo. dade mu dade na ko orang wara ñoo nga jàng ma munuma man munuma yo man kemb mag bi waaye yo karbala bongo karbala bongo moom mbaa jàmm nga xool bi baam bi Mau moo rafet nag bi yaa ngi ko doon durool photo hmm. bi may mën si sa yaay rek nga ci daar nga ma de fan la sama anniversaire man mixal fee laa defoon si taalin saw jël appartement man maa fonk adversaire mm-hmm. te ba kon ma wax la tabaski daaw la woon tabaski daaw suñu kër mbuur sama kër papa mbuur bii de xale nga ci ndurool xale kii yooyu fils à papa à papa laa de bii nag am na boo xam ne moom photo boobu moom xale bi waa bii am na boo xam ne xale bel vie ci ndurool nag la woon euh, màggal tuuba bii moom mati caam dogo mati caam dogo nga ci mati caam dogo <laughs> <laughs> bii moom atelier Pape Sall sama sole woon li jeex na nag sama xarit bi mooy defar photo yi nag ku ci bëgg da nga koy woo 77 113 4 77 78 du moins 78 113 25 88 photo yi ku ci bëgg baam bi baam lay indi bañ may indi photo bi sa kanam xoolal bee ci kaw ca laa defoon Baye Fall bi xool leen bee dafa rafet photo bee yée bii dafa rafet Zalmay waa defoon ndaxas bi lii maa Pape Sall la woon màggal Tuuba xool Pape Sall sama ginnaaw dañ koo nëbb bët bi. dañ koo nëbb bee nag nii disonoo baa ngi ne. <laughs> mon ami mon frère. disonoo. ba waa. <laughs> bee nag man ak kii la. man ak sama benn xarit. libéré Zal Mbaye libéré Zal Mbaye. libéré Zal. looloo ma rek lu ci wax ah. yéen nga ni ah, waa université dañ maa woo ne dañuy taal pneu yi bu ñu bàyyiwul Zal Mbaye dañuy gën a taalaat université.